déedéet taluma jàmm sant ñi moom sama bët moo ma may sa jëkkër nee naa la day doxaan gëmoo ma sama bët moo ma may mi ngi nii ci te sa meilleur ami nag la ànd ak déggoo ma de jeenaa la ànd ak ci boppam jëlal ñëw fekk leen fii. lu tax ma la fii ci hôtel bi naa dina la jaaxal xam nga nu ma mel ak sa jabar bu ñekkee xale ba tey ñu ngi doon ànd d'ailleurs ñoo bokkoon école di jàng tey ba yàlla def li muy def. ma dem tuti Europe Bayi ko fi ki maanu yalla rek ba taxna nak nag si won len nak lu dal koy jël yóbbu ko Europe ge ma nek suma demé mo meuna jënd ay machine jox ko mu ñoo dimbali la ci kër gi té chéri kat yow da nga sonu ci kër gi la nga nek suñu chéri bu baax lool dal la amul lu may xalaat suma ma dal chéri nga may mu ko te do mako bañal. ah trop chéri koko yow lo bëgg duma la ko bañal. ndax euh, sama soxna tey mën naa ne ci yow laa ko xamee te Sénégal gépp xam nañ sa diggante ak moom kon li nga wax ni mënoon nga sax bañ a tàggu mënoon nga koo def kontaan naa trop ndax tey mënoon ngaa nekk fee nga nekk doo ko fàttaliku doo ma fàttaliku waaye fàttaliku moo tax nga ñibbisi am xalaat bi pour jël ko yóbbu leen daal laa lay wax man leen dong laa lay wax jëlal yóbbu. Zeyna kii may gis ne Zeyna la wala du Zeyna. non kii mën a doon Zeyna. non Zeyna waxul mën a nekk Zeyna Zeyna sama xarit sama meilleure amie. amul ku muy génn ku dul sa jëkkër ne moom lay mbaraat. kaa ñu dem nga lijjanti ko li mënuma koo gëm. nañ dem nga lijjanti ko bu dee xeex man mën naa laa xeexle neex nañ dem nañ dem ma ko ba nga la ah tey damaa kontaan yow moom faa mu la kado boo xam spécial pour yow la eh teguma la coono boobu ah yow sama jëkkër nga xam eh, sama chéri nga boobu teguma la coono boobu dama bëgg ngeen ñaanal ma rek man tamit nag sama fiancé bi takk ma nag fii tooj nag inshallah dag léegi loolu dama ciy jàpp <laughs> dama ciy jàpp dama ciy taxaw yow yaa imbécile yow moom looy def fii may wax nga xumay xulli ma

nga yaakaar doomu gor dina ko def yow doo nit ku yow doo nit ku baax yow noo mel nii ndax lan ndax fii ba ràpp bi kii nga xam ne kër gu tas moo ko tas chéri sama mbaax rek moo ma taxoon ak colère gi ñu yàlla boole ñu xale ba tey ñu ngi doon ànd ndagam nii la demee dama ko bëggoon yóbbu rek pour mu dem pour mu mun laa dimbali ci kër gi ndagam nii la demee maa ngi la jégalu bu baax baax bon sens ëppal ku ëppal leget gu mu yor rek day toj moo la dal nag chaque jour ma di la wax ne la fiiba rëpp yi ngay àndal ah saytaan nga xam amul fu ñu jëm chaque jour ngay ànd ak ñoom moo tax li lay dal di la dal rek te naa la xamal lu tuut te bariwul mooy nga ñëw kër ga say bagage nga jël ko dem ca xaj soof yaay saytaane yow li moo tax nga indi ma fii xal ma sama sëy taxale ma ak sama xarit may wax nga naan ma ay leeki la yow yaa bon yow li ma def tey mooy lan. ah man ka damaa yaakaaroon dañuy génn rek moo tax ma woon rek. yow damaa yaakaar moo ma teg moo tax nga teg sama cin li tas loo loo sama sëy bii. waaw taxale sama xarit damaa yaakaar loolu moom moom ma fi indi ah déedéet li mënuma gëm de yow est-ce nga. waaye dinaa la xamal du tuuti bëriwul du lii la ñuy wax naan nooy mooy tasonoon yaa ngi nii noonu pire a ngi waaye dinaa la wan nu ñu mooy tonoon sama ndax sama sëy bee di ko régler ba mu mel ni ah. A ah, ba Z di nga ko réglé est que xam nga loolu te da ngay ñëw ñu réglé ko ci